Euh, mbégte la ñuy wax. dëgg la nekk ci weeru mbégte weeru yërmande. Mm-hmm. ñu jóge ci màggal bi waaye nag màggal bi dafa am loo xamante ne nii daf si am. Mm-hmm. muy ab soxna soo xamante ne nii Adja Ngoy Fall lañ koy woowee. Mm-hmm. mu wane taaram yor ay ooram. takk def ba mu baax macha allah. waaye nag dañoo gis ni que réseaux sociaux yi am na ñoo xamante ne nii dañ ko ciy ŋàññ naan or yi dafa bari fa mu ko takkee waru ko fa takkee jamono ji dafa metti mu nekk ay yu jugement yoo xamante ni tamit kenn doo xam doo xam lan ngay def yow en tant que jigéen déjà nag nga ko appréhender. ah maa fii xam nga man dama jaaxle ci sénégalais ak sénégalaise ngoy faal dama koy def jàkk ne ko takkal ba mu neex. Mm-hmm. ruugul ba mu neex sajjul ba mu neex ngoy. àddina bu gàtt bii. metti mi tas mii doo bégal sa xol bii ñun lu tax ñun jigéenu Afrique ñun lu ñu am ci lu baax ñu ŋàññi ñu te suñuy moroomu jigéen it dañ ciy ànd di ñu ŋàññ mm-hmm. ma ni ku sañoon am Asiya mi jëkkëru Ngoy mm-hmm. tonton Asiya wutal ma ku mel ni yow waaw kay <laughs> waaw bon jigéen ah xam nga lan moo xew maa fii mm-hmm. fan yële passé jamono yee passé gisoo jigéenu bambara boobu xaw nu mu tudd xale bambara yooyu di takk or yu bari robe or la sol. sénégalais yi ak sénégalais ko sinaab waa nag ñun sénégalais yi nag yow ngoy na takk ku mu naqari li mu takk nga yéeg ci pàppa yaay doom bi nga xaru mais ñun or yi ñu defar ñun der bu bi mérité wuñ ko lu tax yow mérité woo fii góor jóge fee may la fukki kilo or jigéen nga naar yi dañ ko defar pour seen jigéen ñi lu tax ñun suñu góor ñi mënuñ ñu ko jëndal soo ko amee jëndal takk su la ko góor joxee jëndal takk ooray suñu xarit moom la bëgg moom la xam suñu amee mbégte takk ko dafa bëgg dafa bëgg màggal gi moo ko bëgg la mu takk oram ñii saaga xaadimu rasul nag dégguñu ko ci màggal gi sénégalais yi nañu wax dëgg bi nañu bàyyi ngoy faal ñu wax ci ñii di saaga xaadimu rasul ak sëriñ Babacar limaamu lay Baay Ñas na senegale yi yépp jóg takku na imaam yi jóg woo ñu mars ñu dem wax président Macky Sall mu arrêté lii ci social media bi xale yu ndaw yi ñoo ciy jàng ëllëg ba réew mi dootul baax ba faw nan wax ci loolu takk sa or lu ci ne takk or laa wax de lu ci ne lan nga bëgg takk sa or lu ci ne. mais nee nañ or yi dum ko takkee dafa bëri y en y en mais moo ko moom ñaata jigéen nga dégg fi ñu dem màkk sàcc or da nga dégg ni ngoy dafa sàcc oram yi. ay waaye sénégalais yi nag nañuy yéene nag nit jàmm saa yu ma ko seetaanee laaja sama xarit bi barke salaatul faatiha dama koy def ëf ay ngoy sangool plomb oto. <laughs> sarax boobu laa la jox da ngay dem ba ca ruuba dindi plomb bi ngoy xooj ko ñetti fan sangoo ko yal na la yàlla musal ci bii ak bii su ma ko amoon takk ko nee naa Marème Faye Sall bu ma doon fës lay di Sénégal lay xaru damay def ba mu baax damay takk ci yu baax yi comme ñi fi newoon di takki caq bu Marème fay gàddoo benn verre xam nga lu ñuy wax mm-hmm. gis ngeen verre bi mu takk man man man man man xutdab bi maa maa yor benn saago saago euh, kii nu mu tuddati euh, Chanel ku iñaan ni ma yor da sa saag bii gis naa Marème fay euh, ma ne ko yow man ku dabb bi ndaga maa ko mën a yor waxantuma laa first di yow gis ngeen first lady yi ci àddina bi Marème Faye simple su ma doonoon first lady sénégalais yi danañ jooy ba sonn te duma ko yëgal sama yaram <laughs> ngoy takkal jeeg bi takkal danga wax tonton mu wutal ma ku mel ni moom man yii laa bëgg jigéen danga koy teral mu wone ko ana lan moo xew senegal yi bañ ñu nii ana lu tax suñu moromu jigéen ñi iñaane nañu nii kon daal malien yi mën nañ ko takk ñu apprécier ko mais ñun ci suñu biir boo fi takkoon tey benn montre ne montre bi jamaa la bu subaa doo liggéey seen seen seen bi <laughs> directeur ba lañ lay boole mu ne farmason nga <laughs> waaw wala wala wala wala wala da ngay nañ ñu bàyyi ñu dund suñu dund bii takk or moom la ñu bëgg ak jamaa juréeñ nañ leen ba futi souffrir nan ba sonn jigéen bu ñuul bu takkee or dafa rafet naar yi gënuñ ñu te ñun dañooy roy ci naar yi lu tax bëgguñu jigéen ñi roy ci naar yi naar bu lay takk yow dalay jox seen turu or ak li ngoy takkoon nii mm-hmm. ak kii bi nii couronne bi loolu la naar di jox may bu njëkk mm-hmm. kan nga dégg ñu may ko ko fii ngooye ko takk bii nii ngooye ko takk nañ ko ko nangul nag du am ñaanuma soxoruma su ma yoroon loolu ngoy yor ma takk ko sénégalais di ko gis yow tamit sa yëf cat da ciy dugg sa yëf dañoo xam nan la ngoy def ba am ko di liggéey man de wax dëgg yàlla xaw ma ko xamuma ko ay da patara sama xarit moo xam ngoy mhm. maa dégg ngoy ni samay or dama ko am avant may sëyeeg sax sama jëkkër laaj leen Aïda Patara rek ma décoré woo ko ni ko Aïda mu ne ma te muy dëgg ba mu ma njëkkee woon ni ma kaay tourneel ma la mu or la takk ma ne ko ndax doo ma may lam bi mu tekki jox ma ko. Mhm. kon yàgg naa riis. mooy mhm. dem Dubaay di dem ak ñëw di sénégalais yi nañ ko ñaanal mu gudd fan. li mu am nii yàlla naa ko am man noonu laa mel. Mhm. dama koy ñaanal ba pare na nga yàlla bëgg naa ci. lu ci ne. man su ma iñaanee ngoy day tax du takk ooram yi tamit nag chéri yéene naa la ko de barke yonent bi yéene naa la nga takk bu na a wàcc bu ngoy bi yéene naa la ko yéene naa la jëkkër ju la teral xam nga bu ñu sañoon lu ñuy def senegal ñuy am ay dëkk ru xuut dabu yu ñuy rey ñuy souffrir di am ay cancer ru ween di dee waa ak ay goitre ngay xam ñu lay yóbbu am ay cardiaque ngoy takkal sama rakk ja takkal <laughs> na ràpp ak jàmm waaw kay mais comme euh, ñu gis ni tamit si màggal bi couple euh, Askia ak euh, ak Ngoy bi mu nekk loo xamante ne aussi lu lu lu la aussi est-ce que tamit ñoom waruñu woon xool ci jëkkër nu muy teralee jabar au ñu doon focus ci or yu mu takk ak lu mu Askia dafay woon yenn senegale yi naka nga war a neexale sa jabar naka nga koy sagale ci jig moroomu jigéenam yi nee ma man dama dégg de maa ngi koy seetaan de mu ne du sama jëkkër sama mag la sama xarit la su ma génnee sax damay yàkkamte ñëw bu génnee dama koy woo ba ba muy ñëw mais dañoo am complice ay waay bëgg naa ko am jëkkër joo xam ni doo ma tëgg ay waay métit ay waay métit di sàcc sama xaalis ak samay or ay waay waay waay nañ ko ñaanal lu tax Sénégal man daal su ma gisee sénégalais bu feer ci jëkkëram jëkkëram ñu nekk complice barke alxuraanul karim dama leen di ñaanal parce que jigéen bu ne sa jëkkër kese moo la mën a bégal si àddina du sa yaay sax ki ngay fanaanewul guddeeg bëccëg moo mën a rey jigéen slowly ci sa biir ngay dee ndànk ñaata jigéen a fi dee bàyyi seen i doom ñu ndaw barewul dara reyu leen bu dul góor ñi ngeen baal ma na góor ñi man daal sama tonton ak si yaa tonton wutal ma benn bu mel ni yow waaw koy <laughs> waaw kay. waaw xam naa ni góor yu mel ni tonton Askia bëri nañ donc. dañ lay mhm. ñaanal rek ñu ñëw gis nga. Mhm. taa courant ngi nii nag def na tagalam bu ba ak garam bu bom. Ah, ñëw leen ah sama tonton de. non dafa sagal ngoy de man lii laa bëgg man. day mel ni tonton Askia. Mhm. incha allah dinañ ñëw nga ne da lay takkal or ba waat ba ci suuf barki yonent bi dama kontaan. <laughs> jigéen dara joomu ko. billaahi wallaahi taalaahi.